kon mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgalaat ñu dajewaat ci am néegam fas yéene jël benn bind ci la nga xam ne mooy leeral diineem ñu koy sukkandikoo ci téere bi di minhajul muslim bu abu bakar al jazairi rahimahullah tey jii mooy le 14 novembre ci 2021 di tombeek le 9 ci rabi ussaani ci 1443 ñi ngi tolloon ci téere bi jàngale julli ba yegsi woon ci li ñuy tuddee salaatul marid mooy jullik aji feebar bu dee ñu yor móor yi bees yi yaakaar naa nga ñu ngi ci page deux cent cinq salaatul marid muy julli aji ki feebar kon mbokk yi ni ñu ko waxee rek dañu xam ne bokk na ci tuyaaba yañ gën a am yaakaar mooy jullit ñi daje di jàng seen diine li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne yàlla am na ay malaaka yuy wër place yañ daje dafa def zikrullah bokk na la boroom xam-xam yi di wax bokk na la gën a kawe ci zikrullah fa ñuy jàngale lu dagan ak lu xaraam loolu mbokk mi ngi noonu kon su dee bokk nañoo gis bind bi fi ñu yem day wax ne iza kaana al maridu su dee ne aji feebar ja day laa yaqdiru ala alqiyaami mustanidan ila cheyin su dee munta taxaw di wéeru ci dara solla qaida ku mel noonu day julli ca toogaayam ba wa ida ajiza an il quud su demee ba lot ci munta toog solla ala janbihi day julli ca wetam ga wa in ajaza salla mustaqliyan ala qafaahu su demee ba lott ci loolu day jaaxaan ca la nga xam ne mooy gannaaw boppam ba di ndogam ga maddan rajlayhi ila alqibla daa di tallal ay tànkam jëm ca qibla wa yaj'alu sujudahu axfada min ruku'ihi mu fexe ba ay sujuutam gën a suufee ay rukoom wa in ajiza ani rukuu wa sujuud su demee ba munta rukoo munta sujuud aw ma a imaan mu junj ak junj wala yatruku salaata bi xaal aji feebar ji tànk mi ngi xelam du bàyyi julleem ci xaal bu mën a nekk li qawli imran ibnu xusayn radiyallahu anhu ngir waxi imran jam waxoon kaanat bi bawasir man day daa nekkoon ci man lii di feebaru hémorroïde fa sa'altu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ani salaa ma laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka laay jullee fa qaala salli qaa'ima mu ne ko jullil nga taxaw fa in lam tastati fa qaa'ida soo mënul nga daal di toog fa in lam tastati fa salli ala janbik soo mënul jullil ci sa wet fa in lam tastati fa mustaqliyan soo ko mënul nga jaaxaan wala yukallifu llahu nafsan illa wus'aha yàlla du teg bakkan lu dul la nga xam ne moom la man mbokk kon lii day mbir boo xam ne jullit ñu bari dañ ciy juum jullit ñi bari bu ñu nekkee lalu hôpital du ñu julli mbokk loolu njuumte la ca ñoom njuumte la ca seeni mbokk jullit du bàyyi julli tànk xelam mi ngi ci moom looloo tax julli dafa am ay daraja bi jëkk gën a mat mooy nga taxaw daldi julli su dee ne mënoo taxaw julli waaye soo wéeroo da nga mën a taxaw amoo droit di toog da nga war a wéeru daldi julli naka noonu soo mënoon a taxaw ca wé ca wéeru woo it amoo droit di wéeru su dee dem nga ba wéeru googu it mënoo ko nga daldi toog daldi julli loolee bu ko defee la nga xamee ne nii moom mooy say rukkoo ak i sujjóot heure booy rukkoo da ngay sëggal sa bopp ak sa ndigg wax la ngay wax siggi booy sujjóot nga sëgg ba gën a suufe loola toogaat sëggaat toogaat noonu ngay jullee ci sa toogaay su dee feebar ba tar na ba sax toog di julli sax mënatoo ko kon ñu ne la su boobaa na nga julli ci sa côté ndeyjoor tëddil côté ndeyjoor ngay julli di mi di junj say rukkoo ak i sujud soo ko mënul nga jaaxaan tàllal say tànk jëmale ko xibla lii lépp it li tax fuqaha yi wax ko mooy sahaaba bii di imran ibnu xusayn amoon na feebaru hémorroïde xam ngeen yàlla nañ ci yàlla musal am na ñu muy dal ba daanaka dañuy raam dañu mën a toog dañu mën a taxaw bi mu ñëwee ci yonent bi aleyhi salaam laaj ko waaw su may julli nu may def ak moom yonent bi jàngal ko règle boo xam ne du pour moom waaye pour xeet bi yépp la bi ilaa yawmi diin mooy bu julli jotee daal taxawal nga julli mënuloo ko wéerul nga julli mënuloo ko toogal nga julli mënuloo ko jullil sa wet wala nga jaaxaan nga daldi julli kon ku yàlla nattoo nga dem ci lalu hôpital it maadaama sa xel mi ngi ci yow nga la way bul bàyyi julli léeg-léeg njuumte day am mooy man mënuma wàcc dem di jàpp léeg-léeg njuumte day am fii ma tëdd sobe kese la waaye mbokk jullit loolu lépp fexeel ba utal ko la indil xeer boo xam ne da nga cee mën a tiim julli même bu dee xeer boobu yombul sax waxtu wi nar a raw nga la way jullil même bu dee jàppoo même bu dee tiimoo la nga xam ne da ngaa nekk ak moom ci sobe su dee ne mën ngaa teqalikook moom avant ngay julli xayrul su dee mbir la boo mun te teqaleeg moom àndal ak sobe bi nga julli waaye julli gi moom kenn du ko bàyyi tant que yaa ngi nekk di ànd ak sa xel loolu moo aju kon ci jullik waa ji nga xam ne dafa feebar dama xamul ndax am na laaj bu jëm ci julli ku feebar avant ñu dugg ci beneen bunt bi walla su amul ñu doog a jël beneen bunt bi naam bismillah naam naam ah damaa gis waaw waaw wala ku li xaal koo xam ne day jógee këram dox ba ci jàkka ji suy julli mu daal di toog niñ ko waxee daal mooy tànk mën naa taxaw julli amul droit toog di julli même bu dee taxawaay bi bu yàggee dalay sonal taxawal la nga mën a taxaw la ci des nga toog ko waaye waroo toog mutlaqan ni ngi noonu mën nga toog ba yëg ne imaam mi ngi waaju rukkoo nga jóg wala nga rukkoo foo sonne nga toog waaye toogaay ba bu dee mën nga ca dara dañ naan la taxawal la nga mën waaye moo tax mu tëjee fii ne laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha yàlla du teg bakkan lu dul lu mu mën léeg-léeg nga gis ay julli mën naa yàgg ci yenn mag ñi wala ñenn ñi feebar ba taxawaayu rakk bi yëpp duñ ko mën a matal su boobaa taxawal la nga ca man la ca des nga daal di toog mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam waaleykum salaam wa rahmatullah naam waaw même boobu dee mënuloo sëgg da ngaa war a taxaw su dee mën ngaa taxaw soo demee ba munta sëgg nga doog a toog junj sa rukkoo ak sa sujud waaye julli lépp loo ca man da nga koy indi la nga ca mënul nga doog a def la ca sës loolu mbokk mooy mbir bi wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw ala kulli xaal bu dee ne it am naam la la nga xam ne moo ca gën mooy nga frenkulaayu loolu moo gën ci julli toog su dul looloo noo tooge baax na man ngaa tooge ni ngay taaya waaye boo frenkulaayu woon loolu mooy la nga xam ne mooy la gën bu dul looloo it noo mën a toogee day doon toogaay bu baax waaw ala kulli xaal bu dee man ngaa toog ci suuf nga julli say julli yépp ci normal loolu mooy la gën rawatine yenn ci borom xam-xam yi indi ay ixtilaaf ci naan julli chaise baax nag julli chaise baaxul donte ne ne tegtal yi ci borom xam-xam yi wax toogaay bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax boo mënul taxaw na nga toog la chaque ne ki toog ci chaise dafa toog waaye daal bu dee yow mën ngaa toog ci suuf julli ngir mucc ci ixtilaaf loolu moo gën ngay toog ci chaise allahuma lu dul lor nga yegg ba même boo toogee ci suuf la ngay mën ci chaise ba doo ko mën ci suuf kon dañ naan la demal ci chaise ba ndax julli toujours la gën a jege naka yonent bi doon defee moom la ñuy laaj jullit bi wallahu subhanahu wa taala alam naam ala naam ci wàllu feebar ku feebar naam bismillah naam su dee da ngay am kattan ci taxaw ci naafila may nañ la nga toog waaye su booba genn wàllu pay ngay am ca julli ga ci feebar toog di julli moog ñu taxaw di julli ñoo yem pay ca yàlla amma ki feebarul di naafila toog ca naafila ga ku mel noonu genn wàllu payu ka taxaw lay am su boobaa it loolu du yàq sa julli dara man ngaa naafila toog man ngaa taxaw ba mu yàgg nga toog man ngaa toog ba mu yàgg nga taxaw loolu lépp lu ñu maye ci naafila la mi ngi noonu wallahu aalam waaw yal nañu yàlla may afiya waaw yal nañu yàlla may afiya wa ala kulli xaal li muy wax rek mooy gisagul ku feebar ñu koy jàppoo di li ci jàkka ji waaw Abdullah ibn Mas'ud de mooy wax loolu Abdullah ibn Mas'ud nee na jamono yonent bi ñaar dong ñoo daawul ñëw jàkka naafiq boo xam ne ñëpp xam nañ naafiq la wala koo gisul te jullit ñi rek xamal daa feebar mu ne même ñooñu feebar léeg-léeg am ñu ci daan lëng ba indil leen taxawal leen ci sàppe si ñu daal di julli loolu kon la Ibn Mas'ud waxoon yu wane it ne jullit daal lay tax mu julli këram war naa doon lu rëy rëy waaye tànk mi nga am pexe pour mën a dem ca mbooloo ma daa war a góorgóorlu dem ca mbooloo ma moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne cay naafiq yi kenn du leen gis ci jullig fajar kenn du leen gis ci jullig gée ndax jamono yooyu courant amul jàkka ji da daan lëndëm duñ ñëw fajar duñ ñëw gee mu ne nag suñu xamoon ngénneel bi nekk ci fekk si julli fajar ak julli gee suñu feebaroon bay raam sax daal di raam ba ñëw ci jàkka ji mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw doonte ne maa ngi doon ñaan bunt bi nga xam ne moo ci tegu mooy salaatul xawf mooy julli ak ragal ca loolu ci tënk suñu borom yàlla subhanahu wa taala dani su ngeen nekkee ci ci cukki ngeen ragal yéefiri fitnaal leen na ngeen julli jullik mbooloo waaye su booba armée bi xaaj leen ko ñaari xaaj ñenn ñi ànd ak imam julli ñi ci des garde leen suñu paree su ñii bu ñu bu ñu àndeek imaam ba sëlmal ñee doon garde ñëw imaam moom continuer ak ñoom mottali leen julli su ko defee ci gàttal rek lu ci bari ci àll lay doon ñaari rakk la ñuy julli imaam day ànd ak benn mbooloo mi ñu kabbar ñi ci des di garde su imaam jullee benn rakka jóg taxaw mbooloo mi jóg taxaw jàng faate ak saa rukkoo mottali seen rakka muy ñaari rakka ñu sëlmal imaam moom ma nga taxaw bu mbooloo mi sëlmalee dem jël place su ñu doon garde ñooñu ñëw fekk imaam suñ jàngee faatiha ak saar imaam rukkoo ak ñoom su daa demee ba jëf ñaari rakkaam fa mu toog ji taaye ñoom ñu jóg mottali seen ñaari rakka daa di imaam sëlmal ak ñoom kon armée bi deux parties lay doon benn partie bi la imaam di àndal takbiratul ihram benn partie bi la imaam di sëlmalal loolu nag mbokk jullit dañoo gis ne nit ki mën ngaa dund ba dee ci doo ko gis ñaareel bi mooy jihaatu démb ak jihaati tey bokkul jihaat yi démb ay jaas si lañ daan cawante léeg-léeg armée bi day nekk ni armée nekk nii waaye tey ku ne xam ne jihaat yi tey passé nañ loolu doomu aadama yi ay bombardement yi ñuy def nit ki mën nekk à des centaines de kilomètres di dóor ay bombardement ba nga xamee ne lu bëri ci salaatul xawf boobu daanaka ñu koy dund tey ci kaw suuf dana jafe lool sax mu am dund ko ci kaw suuf loolu moo tax ba pour gagner du temps maa ngi doon ñaan ñu ubbi ña deuxième page bi rek ci fii salaatul jumaa mi ngi noonu ñi yor mër bu bees bi xool 207 bi mooy salaatul jumaa al maddatul ashira fii salaatul jumaa mi ngi noonu lu dul rek ne bu ñu paree ku am question ci salaatul xawf ba mën na ko poser waaye ngir gagner du temps incha allah ñu jël fii salaatul jumaa kon day wax ne lii di ñeen fukk ñe fukkeelu bind bi muy jàngale ci julli doonte ne ni ngeen jéggal ma bala ñu dugg ci salaatul jumaa salaatul xawf la nga xamee ne nii moom la ñuy jàngal mbokk mooy importance julli mbooloo ndax même bu dee ne dañoo nekk ci jamonoy jihaad jàkkaarloog noon yi teewul suñu borom mu ne nañ julli mbooloo nañu am benn imaam loolee mbokk da lay jàngal yow jullit su dee da ngaa nekk ci jàmm noo mën a def ba julli mbooloo nga la way def ko islaam loolu mooy la gërëm ca jàngoon nañ ca lañ jiitu lu mu néew néew néew buñ jëlee dégagé ndax julli mbooloo charte la ñu teg ko fee ndax farata la ñu teg ko fee waaye ñu jël rek ngëneel yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na ka dem ànd ak mbooloo mu julli moo gënoon mu julli moom rek ñaar fukki yoon ak juróom beneen riwaaye ñaar fukki yoon ak juróom ñaar looloo tax ba képp ku jàng histoire ba xam jamonoy jihaad dañoo war a julli mbooloo di xaaj armée bi am benn imaam loolu it muy wane ne boo dëkkee cib gox ñu woote ca jàkka ja kaay leen ñu julli mbooloo loo mënoon a def da nga ko bàyyi dem bokk ci julli mbooloo ga mi ngi noonu wallahu aalam léegi ñu ñëw ci salaatul jumaa mu ne xukmuha lan mooy attey julli ajjuma salaatul jumaati waajiba julli ajjuma day farata la bi qawli llahi taala ca waxi yàlla ja yaa ayuha allazina amanu ey yéen julit ñi ida nuudiya lissalaati min yowmi aljumaa heure bu ñu wootelee julli ca bisub àjjuma fasaw ila zikrillah yéen ñépp dem leen jëm ca zikrullah fasaw dana firi daw waaye fii kenn du ko tudde daw mooy ittewoo leen jëm ca zikrullah wa zarul bay a ca ngeen bàyyi njënd ak njaayi mbokk aaya bi kon la suñu borom yàlla wax ci juma juma bu jotee dafay nekk farata jullit bi amul ngant nga dem ca juma ja boo ko deful day nekk bakkaar boo xam ne nii bu rëy boo xam ne am nga ko ndax boo jullee tisbaar dana baax maadaama ñii dañ ne waajib kon dañ naan def na bàkkaar bu rëy waaye tisbaar ba baax na mi ngi noonu kon te ne nii am na yeneen i borom xam-xam yoo xam ni ñoom dañ koy def charte ca mooy tisbaar ba baaxul waaye la gën a digg doomu rek mooy jullit bu amul ngànt ba pare demul jumaa ja am na bàkkaar bu rëy bu mu gàtt kon loolu la suñu borom wax suñu noddalee juma loolu mooy nodd gi wañe ne imaam ñëw na amma nodd gu jëkk ga loole Usmaan ibnu Affaan moo ko saxaloon saxaaba ya doon dund ak moom ànd ci ak moom jamono boobu montur xewul su ko defee ñu daan nodd nodd guy wañe ni ay préparé wu leen léegi imaam ñëw amma nag nodd gi wañe ne imaam ñëw na moom suñ ko xesee ba yëkkati araam na ci jullit bu jumaa war muy dem di jënd ak a jaay mi ngi noonu wa qawli rasuli alayhi salaatu wassalaam daan cee gisit wax ja yonent bi wax la yantahiyanna aqwaamun dana bàyyi moos ay nit an wadihimul jumaat ci sànk gi ñuy sànk julli ajjuma aw la yaxtimanna allahu ala qulubihim wala yàlla dana kaste seen xol ya mi ngi noonu summa la yakunanna min alghafilin gannaaw ba ñu bokk ca ña nga xamee ne nii dañoo sàggan xadis boobee imaamu muslim soloo na ko ca itamit mbokk kon suñu borom moo tëral ajjuma muy xikma boo xam ni dana ko wax ci kanam xikma boobee muy nar a wax ci kanam nag bépp jullit boo xam ne dafa sàggani ak juma du julli ju juma bokk na lu ko yàlla di fayee mooy tëj la nga xam ne mooy xolam mu bokk ci ñi sàggani diine yàlla ci waliyas billah te it loolu bari nañ ko gis lool ci sunu doom yi nga xam ne ñoo nekk ci yenn dëkk nasaraan yi te dëkkuñoo ay juma di fa dem lu ci bari seen diine day wàññeeku bu baax a baax wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam aljumua xaqun waajibun ala kulli muslim dem julli ju jumaa àq la bu war ci bépp jullit fi jamaatin illa arbaa mu dem jullee ko ca mbooloo ma lu dul ñeenti ñi abdun mamluk jaam bu ñi moom aw imraa wala jigéen aw sabi wala xale aw marid wala ku feebar kon heure bu ñu noddalee juma wareef la ci jullit ñépp ñu dem bam des ñii mu lim jaam ya jigéen ña xale ya ak ñi feebar ñii ñoom juma warul ci ñoom waaye buñ demee ca juma ja dañu am tuyaaba ja ña juma ja war am doonte ne bu ñu demul duñ ca am benn bakkaar gannaaw loolu nag muy wax alxikma fi mashruiyatiha ana ban xikma mooy lu ñuy yokk ci xel di sagesse bu ñuy mën a génni ci xéewal gi ñu yàlla defal ci aljuma doonte ne yow jullit xam xikma ci jaamu yàlla dalay sawarloo waaye du la ko tax a def jaamu yàlla gi soo xamee xikmaam ak ñàkk xam xikmaam maadaama xam nga yàlla ko santaani da nga ko war a def waaye nag min al xikami allati shuriat laha salaatul jumaa bokk na ci xikma ya nga xam ne tax na ñu tëral lii nga xam ne mooy jullit àjjuma jam'ul mukallifina alqadirina ala tahammuli almasuliyat mooy ñu dajale ñi nga xam ne dañoo majeur ca am kattanu mën a gàddu ay responsabilité min ahli albaladi aw alqarya na doon loolee day doon waa réew ma la wala waa dëkk ba la mi ngi noonu na doon dëkk bu mag dëkk bu mag mi albalat wala xariya wala dëkk bu ndaw loolee ñu dajale leen awwala kulli usbu'in fi makanin wahid ci njëlbeenu semaine bu nekk ñu dajale leen ci benn place di talaqiya kullu ma yujaddu ma yajuddu wa yaxdusu min qararat ci lépp loo xam ne dina ko tëral mu doon lu ñuy sos ci ay décret mooy ay tëralin yoo xam ne dafay aju ci organisation wa bayaanaat ak ay leeral yasduruha imaamul muslimin yoo xam ne da koy génne imaamu julit ñi wa xalifatuhum ak ka nga xam ne mooy seen kilifa di xalifa ba fii ma yataallaqu bi islaahi diinihim wa dunyaahum ca la nga xamee ne nii day aju ci luy yeeweñal seen diine ak seen duniya mbokk xam nañ ne jamono ju jëkk ja lii di presse amul rajo amul télé amul ay journal amul waaye xikma bi yàlla tëral ci àjjuma moo daan tax ba ñi nga xam ne ñoo daan jiite dëkk bi da ngay gis lépp luñ bëgg a jàllale day yomb lool bu àjjuma jotee imaam ñëw taxaw ne nangam ak i nangam xew na décision biñ ci jël mooy nangam ak i nangam su doon jamono joojee buñ daan waajal ay guerre wala ñuy avertir am na ñu ñuy attaqué wala ñuy tëral ay ndimbalik impôt yooyu yëpp da ngay gis ne bisu àjjuma lañ ko daan tëral jullit ñëpp ñu am kàttan ñëw ñu jox leen ordre yi nga xam ne daa jóge ci xalifa bi ca mooy amir bi jiite jullit ñi loolu njëlbeenu regroupement ak tasaare information mooy ngëneel ba ñuy jëkk gis ci àjjuma gannaaw ba it wali yasma'u min at-targhibi wat-tarhibi wal-wa'di wal-wa'id mooy ñu dégg it ci lu leen di xemmem loo aljanna di leen tiitloo ca sawara di leen fàttali la yàlla diggaate ñu baax na di leen fàttali la yàlla tëkkoo ñu bon ña muy wa'id maa yaxmiluhum ala nuhuudi bi waajibatihim loo xam ne dana leen yóbbu ci ñu taxaw ci seeni farata wa yusaa'iduhum ala alqiyaami biha mu dimbali leen ci ñu taxaw ca fi nashaatin wa xazmin tiwaal al usbuu ñu taxaw ci ci cawarte ak ci dogu ci li des ci semaine bi yëpp ca mbokku jumaa it bokk na lu muy jëriñ doomu aadama dafa gaaw a saggan daa gaaw a fàtte looloo tax jullit ñu au minimum semaine bu nekk war nañoo daje ki nga xam ne mooy imaam ba taxaw seen kanam indi leen aaya yoo xam ne dana leen delloo ci yàlla moo tax fokk ñu ubbee ko ragal leen yàlla fàttali leen la yàlla déggaati ci àjjanaam ya ko topp yàlla topp yonent yi texe na fàttali leen it sawara ko mooy yàlla kaza wa kaza loolee jullit ñi waaraate googu nekk ci ñoom day mel ni ni ngay chargé sa portable bi mi ngi noonu ni ngay chargé sa portable yi am na portable yoo xam ne nii chargement mën na def une semaine wala dix jours sax loolee bu ca jullit bi nekkee di ca fàttaliku di dugg ca njaboot gaa commerçant ba ak yooyu mbir may wàññeeku nànk-nànk bu àjjuma jotee encore imaam delloowaat leen encore ci seen borom loolee it da ngay gis ne xikma la boo xam ne moom la ñuy jëlee ci juma bokk na ci loolu it ba tey wa tabdu haadihi l xikma dana feeñ loolee nga xam ne mooy tëralin bu rafet boobee lil mutaammil min xilaali shuruuti l jumaa wa xasaa'isiha ca kay xalaat ci charti ajjuma ak i jagleem is min shuruutiha al qarya ndax kat ajjuma bokk na ci chartam fokk mu nekk ab dëkk wal jamaa fokk mu nekk mbooloo wal masjid wa tawxiidihi mu nekk jàkka ca it mu nekk loo xam ne ni benn yoon lañ ca nit ñiy daje mi ngi noonu wal xutba fokk ñu indi xutba wa kawniha min al xalifa aw il waari ak nekk ga muy nekk di jóge ca ka jiite jullit ña wala boog kam délégué ca jàkka ja wa tahrimil kalaam asnaaha ñu araamalit kuy wax ca jamono ba ñuy xutba wa suqutaha an al abd wal mar'a wa sabi wal marid ak rotal gañ ko rotal mooy teggil gañ ko teggil ñeenti ñi jaam jigéen xale ak feebar li anna taklifa haulahi gayru taam ndax responsabilité ñooñu ñeent nekkul lu mat wa laysu bi qadirina ala ala alqiyam amuñu kattan di taxaw bi ma qad yutaalabuna bihi ca lañu war a sàkku ci ñoom alal min bari mi ngi noonu ca kaw min bar ba min al masuliyat wa takalif ca la nga xamee ne nii moom mooy ay responsabilité ak la ñuy teg seen kaw kon lii yépp mbokk day dëggal rek ci ne ku xool ni ajjuma tëddoo te mooy fokk ñu def ko ci dëkk te it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tukki yim tukki yépp musul julli ajjuma ca àll fokk ca dëkk ba lañ koy defee fokk ca jàkka ja lañ koy defee te loolu mooy lépp li borom xam-xam yi wax donte ne am na ñu wax leneen fokk it ñu mat mbooloo mbooloo ma am na ixtilaaf ñaata lay doon loolee kon mbokk da ngay gis ne lii day wane ne dëgg-dëggi ajjuma yàlla da koo tëral ngir mu nekk organisation bu jullit ñi di nosewoo ba lépp lu xew ci seen biir ñoom ñépp ñu xamandoo ko ba pare yit xam ban position la ci lislaam wax ak ban position lañ ca war a taxawee gannaaw loolu nag lay wax fadlu yawmiha ana ban ngëneel moo nekk ca la nga xam ne mooy bisub aljuma yawmul jumaa yawmun fadilun wa azim bisu aljuma bisu ngëneel la bisu bu màgg la wa min xayri ayaami dunia bokk na ci bis yu gën ci bisi àdduna yépp qaala fiihi rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xayru yowmin talaat alayhi shams bis bi gën bu jant ma sa fenk yowmul jumaa ma bisu àjjuma fiihi xuliqa aadamu alayhi salaam bisu àjjuma la yàlla bind sunu bàyyi aadama wa fiihi udxila aljanna bis àjjuma la ko dugaloon àjjana wa fiihi uxrija minha bis boobu la ko génne woon àjjana ay kon bis boobu la wàcc ci kaw suuf wala taqumu saatu illa fi yowmi aljumaa lii di bisi pénc du taxaw lu dul bis àjjuma fa yanbaghi an yuazzama bi taazimi llahi la mu warit ñu war koo màggal ci màggal gu ko yàlla màggal fa yuksiru fiihi min alsalihat ñu baril ca la nga xam ne mooy jëf yi yiw wa yubtaadu fiihi an jamii sayiat ñu daal di cay sori ca lépp loo xam ne ay ñaaw téef la mi ngi noonu mbokk kon ajjuma mi ngi nii di bisi ñi tànn ci bisi yàlla yi jalla wa ala muy bisi aljuma suñu borom yàlla moo ko tànn ba am na sax ñu koy gënale ci bisu iid ala kulli xaal bis la ci bis yi ñuy màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na moom la yàlla tànnoon bind ci bay aadama soo demoon léeg-léeg suñ yenn suñ mbokk saraxole yeeg yooyu ku judd àjjuma rek aadama lañ lay tuddee waaw mi ngi noonu ca la ca la yàlla tànnoon yóbbu ko àjjana ca la yàlla tànnoon wàcce ko ci kaw suuf looloo taxit àdduna ji àjjuma lay jeex kuy dugg àjjana it àjjuma nga fay duggaat loolu moo tax ba ñu war koo màggal fa lillahi alhamdu mbokk ñun ñu yàlla may tuuti ay at bay fàttaliku ci gannaaw suñ mag ñi dañoo fonkoon àjjuma ñun bi ñuy xale bi su àjjuma soo déggee ku saagu nga la i yoo xanaa xam moo tey la àjjuma ñu ngi noonu nit ñi dañu xawoon ragal bi su àjjuma màggal bi su àjjuma amaa nag bi ñu demee ba civilisation occidentale not ñu xale yi xàmmeetuñu luy àjjuma xamatuñu luy àjjuma ak dimanche li ngi noonu waaye mbokk bokk na ci lu ab jullit di war a bàyyi xel mooy bul yemale mukk li yàlla màggal ak li yàlla màggalul suñu borom nee na wa man yuazzim sha'air allah fa innaha min taqwa alqulub ku màggal la yàlla màggal loole dafa bokk ci ak ragal yàlla looloo tax ajjuma sa comportement war na soppeeku ci sa colin na ngay demee juma aadab yi mu war a àndal zikrullah yi war a àndal même bu doon ay caaxaan mi ngi ci yow nga war koo moytu toujours sa ajjuma moom war nga koo moytu bépp place boo xam ne rek ngërëmal yàlla nekk fa loolu ab jullit da ko war a bàyyi xel léegi nag ñeenteelu bind bi muy jàng aadaabuha wa ma yanbaghi an yu'ta fi yawmiha lan mooy ay tegginam ak lan mooy la war ñu dikke ko ci bisu ajjuma boobee la ci jiitu mooy al ixtisaalu ala kulli man yaxduruha li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam guslul jumaati waajibun ala kulli muxtalim la jiitu ci bisu àjjuma galawaay xamal ne jullit boo xëyee da ngaa war a sangu sangu bisu àjjuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolee day nekk na farata ci képp koo xam ne majeur nga bu bisu àjjuma jotee nga dem sangu ji avant ngay dem ca jumaa ja loole mbokk da ngay gis ne ngëneel la boo xamee ne nii naam ñay dem ajjuma ja day war na leen waaye même bu dee ne bokkoo ci ñi dem ajjuma sax soo mënoon a sangu ci bisu ajjuma loole dafay nekk ngëneel rawatina jamono bu njëkk ja nga xam ne nit ñi ndox manqué woon na lool dañ daan toog lu yàgg duñu sangu waaye lislaam moom bi mu ñëwee mu ne déedéet bisu àjjuma moom fokk na nga sangu amma nañ ko gën a laaj mooy ña nga xam ne dañuy dem ca jumaa ja loolee heure boo ko defee ci bis bi baax na doonte ne ne boroom xam-xam yi dañuy wax ma qaaraba shay'an aqza hukma lépp lu jege mbir day jël atteem léeg-léeg ñu bari dañuy am problème suñ jamono tey ji yow da ngay xëy ji liggéeyi Dakar bala nga génn sa kër day fekk fajar jotagul boo demee liggéeyi Dakar doo fa am benn occasion mën a sangu juma avant ngay dem ci jumaa ja su boobaa ba ngay sangu ca fajar da ngay yéene sangu juma joojee doonte ne lim gën a baaxee mooy bu ñu demoon ba fajar jot lëm gën a baaxee lum gën a jege jumaa ja yet noonu la gën a baaxee mi ngi noonu ndax jubluwaay bi rek mooy fexe ba bay dem jumaa ja benn xet du nekk ci yow mi ngi noonu gannaaw sangu googee ñaareel ba mooy lii di labsu nazifi siyaab sol la gën a set ci sa yére wa masu tiib laal parfum li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ala kulli muslim ghusl yawm aljumaa wa yalbisu min alsalihi thiyab thiyabihi wa in kaana lahu tiib massa minhu rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na bokk na ci jullit day bisu àjjuma bu nekk nga sangu sol sa yére yi gën a sell gannaaw ba laal parfum bu dee ne am nga parfum boobee lii di ñetteel bi mooy at takbiru ilayha at tabkiru ilayha mooy teele dem ca jumaa ji teele dem ca jumaa ji xëy dem teele dem ay zihaabi ilayha qabla duxuli waqtiha bi zaman ca mooy nga dem ca jumaa ja balaa waxtu waa dugg ci benn temps li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man ixtasala yowma aljumaa ku sangu bi su àjjuma day guslal janaaba na muy sangoo bu bu amul janaaba su ma raaxa fi saatil ula gannaaw ba mu dem ca waxtu wu jëkk wa fa ka annama qarraba budna daa mel ni koo xam ne dafa sarxe lii nga xam ne muy gilim wa man raaxa fi saati thaniya ku dem gontu wala boog ca waxtu ñaareel ba fa ka annama qarraba baqara daa mel ni ku sarxe nag wa man raaha fi saati thalitha fa ka annama qarraba kabsha ki dem ca ñetteelu waxtu wa daa mel ni ku sarxe xar aqran bu ànd ki béjjënam wa man raaha fi saati rabia ki dem ca waxtu ñeenteel ba fa kanna fa ka annama qarraba dajaaja daa mel ne ku sarxe ginaar wa man raaha fi saati alxaamisa ku dem ca waxtu juróomeel ba fa ka annama qarraba bayda daa mel ne ku sarxe benn nen fa ida xaraja al imam amma nag bu imam génne moom xadirat al malaikatu yastamiuuna zikr malaaka yi dañuy daal di teew nag di déglu zikr bay jóge ci imam mbokk lii kon benn hadis la bi wane dañoo war a góorgóorlu teele dem ci jumaa ja yonent bi alayhi salaam seddale waxtu avant ñuy avant imam di ñëw ci juróomi waxtu juróomi waxtu yoo xam ne ki ñëw ca premier waxtu ba mel na ne ki sax sarxe giléem deuxième ba nag troisième ba xar quatrième bi ginaar cinquième ba nen ay mbokk yi ñëpp xam ngeen ki jënd giléem rey ko sarax ko miskin yi bokk la ki jël ab nen saraxe ko loolu it moo tax ba ngalawaay dañu war a góorgóorlu teel a ñëw ci jumaa ji ixtilaaf nag am ci borom xam-xam yi saa yi di yonent bi wax yan saa la ndax saatul jumaa la ca mooy fi fajar jote la ñuy commencé di ko di compter heure yi am na ñoo xam ne dañ na loola première heure bi mooy fajar mi ngi noonu masalan man ngaa wax ne bu dee ne dañuy julli léegi 6 heures ñu ne entre 6 heures ba 7 heures ñu ne saa la 7 heures 8 heures saa la 8 heures 9 heures saa la ila axiri amma bu dee da nga dem ci mazhab Maalik ak la nga xamee ne nii ñooy gis seen gisin ñoom dañ ne déedéet saa bi yëpp maadaama yonent bi dafa wax mu mu gont kon dañ koy jàpp waxtu bi jiitu zawaal la ñuy séddale ay waxtu pour ñoom masalan une heure de temps bi nga xamee ne nii moo nekk ci avant zawaal ak li topp ci zawaal avant imam di ñëw ñoom loolu la ñuy séddale bu doon tonee loolu la mën nañu wax ni bu ñu ñëwoon léegi day nekk une heure de temps avant zawal quinze minutes après zawal la imam di ñëw kon ñoom waxtu yi dañ koy dagg quinze minutes quinze minutes quinze minutes quinze minutes masalan une heure et quart day nekk soixante quinze minutes ki ñëw ca quinze minutes yu jëkk ya giléem quinze minutes yi ca teg muy trente minutes nag ya ca teg quarante cinq minutes muy xar ya ca teg une heure de temps muy ginaar ya ñëw ca quinze minutes yu mujj ya mooy nen almuhim loolu ñoom mazhab Maalik ñoom noonu lañ ko gisee waaye gisuñu ne dafay dellu ca ay sept heures ak huit heures ak yooyu wallahu aalam almuhim daal xam ne boo deful dara boo deful dara bi su àjjuma moom amoo lu gën dem toog ca jàkka ja di def say naafila say salaatu ala nabi di jàng alquran ak a ñaan ba ba imam di ñëw mbokk jàpp naa ne mënees na day waxtu bi lu jot na day quarante huit la ñu nodd ah waaw jot na kon waaw waaw daaw kon yaakaar naa mënees na doyloo loolu bu ñu dajee bu ñu fi dajewaatee incha allah ñu doog nag mottali yeneen teggin yi nga xam ne daa aju ci juma wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw ndax ñi nga xamee ne nii dañuy nekk ci yenn place su école yeeg internat yi ñu gis ne am nañ fa mbooloo ñu créé fa di fa julli juma loolu moom bari na waaye bari waay gi mi ngi am suñu jamono yi tey bari na tey école yu bari créé nañ fay juma waaye daal bokk na li gën a dal xel mooy dëkk bi bu dee am na juma dañoo war a tëj kër ya tëj daara ya ñépp dem daji ji ca juma ji waaye ku ne xam ne nit ñi ni ñu bëree tey ji kër gu nekk rek xaw naa mën a mat mat juma su dee ne nag fu nekk rek dañoo gis ne dañu fay créé juma loolee mbokk da ngay gis ne nekkul woon ci doxalinu sahabatul kiram ak ña nga xam ne ñooy jiitu loolu daal la ñuy wax ci wàllu googee waxuñu ne ne ña fa julli amuñu juma waaye dañuy wax defuñu la gën maadaama daal dëkk bi am na ay juma nañ tëj centre yooyu yëpp dem fa nga xam ne moom lañ jagleel juma ñu daje fa julli fa juma mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam dama gis waaw waaw mooy mooy moom indiwul la nga xam ne nii moom mooy musaafir la chaque ne musaafir it ca la bokk mooy musaafir juma waru ko waaw musaafir juma waru ko xëy na dana ko dabatal ci biir waaye mënoon na ko boole ci ñeenti ñi mooy musaafir juma waru ko waaye bu jullee juma it dana am juma mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ndax mënees naa ndax mënees naa boole julli sal kii sango janaba ak julli ak sango ajjuma kay mënees na koo boole loolu mi ngi mel ni lii di tahiyatul masjid soo doon julli ñaari rakka naafila loolu da ngay gis ñaari rakk naafila yooyu di yóbbaale tahiyatul masjid kon nit ki bis ajjuma jot muy sango janaba day yéene ne mi ngi sangu janaaba yéene wàlla ci ne day sangu pour dem ca jumaa ja loolu da ngay gis ne lépp ci borom xam-xam yi loolu la ñu wax allahuma lu dul lenn ci ñoom ñu xaw a kii mu ne Cheikh Nasir Albani gi dema noonu ñoom lañ naan da ngay sangu lii sangu lii waaye daal lépp ci ñoom rawatina ay Cheikh Ousaymin ak ñu mel na ñoom dañ ne ki ànd ak janaaba bisu ajjuma su yéenee sangu janaaba yéene ci ajjuma ñaari cangaay yëpp da koy yóbbaale wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw naam ah bu ñuy waaw waaw waaw waaw waaw dafa gis yenn jumaa yi balaa imaama ñëw am koy def waxtaan mu ne ndax loolu sunna la am déet ala kulli xaal mbokk jullit loolu leen moo ko waral li ko waral mooy sunu imaam yi seen xutba yi duñ ko firi loolu moo tax ba lu bari ci yenn borom xam-xam yi bokk ci ñoom jàpp ne mbooloo mi yépp nar a ñëw ñëw déglu imaam wax arab joo xam ne xamuñu ci dara nar a tasaaroo ñu ne kon nañ profitoo am nu ñu leen waar am na ci ñoo xam ne xutba imaam bi ci boppam la ñuy jël wax ko ci wolof am na ci ñoo xam ne seen xutba bopp la ñuy am waaye nag loolu mbokk mënoon naa ñàkk loolu xamuñu ko woon ci ci ci diine circonstance moo ko waral li war mooy imaam wax ak mbooloo mi li nit ñi xam loolu mooy li war imaam wax ak mbooloo mi ci li ñuy xam avant imaam di ñëw dañoo war a bàyyi nit ñi ci seen i naafila bàyyi leen ci seen i zikr bàyyi leen ci seen i ñaan waaye dañuy gis ne jàkk yu bëri tey boo fa demoon une heure trente même bu imaam da ñëw deux heures trente minutes benn waaye ñëw taxaw di waaraate di waaraate di waaraate mbokk loolu nekk loon ci sunnu juma yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan tere ñuy toog ci jàkka ji di jàngale avant imaam di ñëw kon daal ñu xam ne erreur moo indi erreur boobu léegi nag ñu bàyyi noonu jàkka ji nit ñi di fa ñëw cent ans quatre dimanche duñ fa jëlee dara yàlla nañu yàlla boole nangul am na benn waay bu mos a jullee fii bi ñu doog a ubbee suñ juma mu ne man day ba mu juddoo ba tey tey laa mos a dem juma mu ne ko ñu déet waay mu ne ah man kat mosumaa xam ne juma dafa am lu ñu fay jàngale gis ngeen. loolee mbokk kon ñu xam ne daal ñee di firi ñee di waaraate avant imam di ñëw ngir bañ jullit ñi bañ a neenal. ñoo tane ña nga xamee ne nii dañuy bàyyi noonu rek imam di ñëw la wax du ca xam dara waaye nag bu doon la war moom ak la gën mooy imam ci boppam moo war a wax ak mbooloo mi lu mbooloo mi xam wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah ah ah naka la ñuy ah naka la koy junjee ça dépend su dee na moom dafa tëdd suuru ko boppam lay sëggal nii day sëggal boppam wax ruk ruk duwaay ci ruko zikri siggiwaat sëggalaat nu mu gën a suufee boobaa boppam rek lay mën a utiliser amma bu dee dafa toog ndiggam lay sëggal day sëggal ndiggam mu mu firi ruko mu siggi sujjuut mu gën a dem ba gën a sujjaat su dee muntu sujjuut ci suuf su dee mënut a sujjud su noonu la koy junjee ñu moytu loo xam ne yonente bi alayhi salaam gis na ku ko defoon ci sahaaba yi koo xam ne da doon yëkkati benn njeganaay di ci sujjuud yonente bi sànni ko na ko sujjuutal ci suuf wala nga junj ak junj kon daal ki noonu la ñuy wax ki mën a sujjuud ci suuf day dem directement ki mënta sujjuud mu junj ndiggam bu dee daa toog wala junj boppam bu dee daa tëdd wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah booy sangu juma avant ñuy salaatu waaw loolu laa wax dama ne loole ki koy def mooy ki amul benn occasion bu mën a sanguwaate waaye bu dee sangu juma moom lam gën a yowmul jumaa bi ñu ngi ci ñu ngi ci jublu bëccëg bi mooy fi fajar jote loolu la ñuy tudd yowmul jumaa mooy bëccëg bi amma nag al yowmu day indi al laylu mooy guddi gi ak bëccëg bi su dee ne wóor na la ne bëccëg bi yépp doo ci am jot ca fajar gi da nga am jot maadaama fajar gi dafa sës ci bëccëg bi soo sangoo ci fajar gi dina ko yóbbaale waaye loolu kañ kay may mooy ki nga xam ne wóor na ko ne bëccëg yépp ba baa jumaa di jot du am fenn fu mu mën a sangoo wallahu aalam naam naam bismillah naam ndax gumba tee naa dem juma déedéet mbokk gumba teewul dem juma Abdullah ibnu Maktum dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko mën a de sama kër sori na jàkka ji te ooma ku may wammat ba indi ma ci jàkka ji yonent bi daa ji noppi waxu ko dara yonent bi bu noppee dafa saxal Abdullah toog ba yàgg mu jóg di dem mu woo ko ne ko Abdullah ndax boo toogee sa kër bu noddi da nga ko dégg mu ne ko mu ne ko kon wuy jil te it la chaque ne mbokk gumba teewul nga doxi say soxla am déet wax naa leen fi ay yoon ñun yàlla defoon ñu dëkkoon yëmbal quartier boo xam ne parce que ay gumba bari woon nañ fa lool chaque jour yëmbal la ñuy jógee dem Dakar wër mbedd Dakar yi yalwaan dellu si waat mi nga noonu kër gu ñu romb nuyu leen ala kulli xaal mbokk silmaxa teewul dem ca jàkkate loole kon ñu bàyyi ci xel bu baax am maa nag koo xam ne yàlla dalaa nattu nga feebar moom nga xam ne da ngaa feebar ba am ngànt waaye jëmmi silmaxa ji rek loolu teewul julit dem juli ji jàkk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam kon mbokk yaakaar naa mënees na ah naam ki doon wax ci noonu kii bi ci soxnaam daf ma yónnee affaire bi quoi waaw waaw d'accord waaw waaw day wax fii rek benn mbokkum julit boo xam ne nii moom it soxnaam dafa nekk fee ci hôpital mu am hôpital opération bu mu ko war a defal ñu laaj ko ci nag lu xaw a takku su ko defee bu ñu paree rek lu ci waay am incha allah ñu ñu jàppale ko yal na yàlla saafara ko saafaral ñu suñuy jàngoro wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain